li aalu mooy yëg la gis nga daanub jël am na ci yoonu murit ndax daanub jël mënut a weesu Sëriñ Tuubaa mi doon tagg xasiid yi doon ko tagg ci rasulullaahi rasulullaahi njëkk daanub jël والعلي وسحب الكرام للمنتهى ولا يزال الكرام للمنتقى ولا يزال بالكرام للمنتقى للمنتقى والعلي وسام بن كرام أوصل سلامك وجري بالمرام يا من الخلق يا من الخلق يا ملا الخلق يا ملا الخلق يا ملا يا ملا يا ملا يا ملا xasida mu xaddamaatul am daa bi ko Sëriñ Tuubaa ne càpp wa innaka la ala xuluqin asim di ko tagg wa innaka la ala xuluqin azim wasixtu bi rabbil arsi sul juudi wal afi ma al Mustafa wallahu li muxlin safi rasulullahi daf na cëpp jàkkaarloog Sëriñ Tuubaa وزغت برب العرز الجود ولا في مع المصطفى والله لي مخلد صفي loo bind jox ma ma bind ma jël jox jibril jibril jox suñu borom bi mu àggee ci bay wax naa ayaa xaadimal muxtaari laa tan sa sahbahu fa man yansahum fal matahu matahum xatahu ayaa xaadimal muxtaari laa tan sa sahbahu fa man yansahum farmatu matul mu yow mi tagg rasulullah ci bind ak way ak jëf saa yoo fàttee saaba yi àndoon ak seen i doom ak seen i alal di tuur seen deret saw way damm na xaadimal muxtaari tansa saabahu faman yansahum falmatu matun muqattawu mel ni kon suñu boppam lay waxal mu jël xarimaam Abu Bakrin Siddiqu su sidqi wal wafa rafiqu nabiyal Mustafa xaara an bahu Abu Bakrin Siddiq su sidqi wal wafa rafiqun nabiyil mustafa al xaara anba'u sina Omar def na cëpp jàpp ci mbiccul kaala Seexul Xaddim ne tudd ma ni nga tudd Aboubacar abu absinil faaruxu sarwa naadirun mooy yëg-yëg la. jeexutu expliqué ndax yëg-yëg tey bu ma maccoon becc ku suukar ne suukar daa weex. daa kaare fépp ya daa sew du tax nga mën a xam ne suukar saf na xam nga nooy xamee suukar saf na sëpp ci kaas yëngal rek jox la kaasu café Touba nga naan bu ne suukar di saf loolu laa la mën a expliquer suukar abu absinil faaruxu bi nga ko tuddee gis naa grade boo xam ne ci boromam tudd gi nga ko tudd yow xaadimu rasul moo tax moo tax kenn du bàyyi Serigne Saliou Mbacké xaadimu sayyidil awwalin wa aaxirin tudd gi nga ko tudd moo tax mu dolli ko ci boromam tudd ma abu absinil faaruq sarwa nadirun mu ne diinul Mustafa isisa si o si na Ousmane uh, uh, uh, بيتس دين المصطفى إجو سانسيو أبو عبس الفاروق سرواه نادر بيتس دين المصطفى إجو سانسيو من أفي صحبي man daa xam ne afaana salxaya lahu nuuru suma nuuru ni manu bàyyu si na na cëp avisan bi man daab na afaana salxaya lahu nuuru suma nuuru ni xamal mu mu ne abu sibtayil muxtaari wa hum nu ammihi aliyun ala fextiran amal mu jaraw saaba yi daj ndax yóbbaale nañ ñi ci des ñëpp asahba rasulillahi inni xadimu mu ne asahba rasulillahi du yéene saaba yi rasulillahi asahba rasulillahi inni xadimu asahba rasulillahi inni xadimu muhibban lakum fillaahi wallahu yakla'u kon daanub jële ngoog ci xasida googu la ko yàlla la ko rasulullaahi waxee na ko yow Sëriñ Tuubaa sa jëmm jéem a gën a sama jëmm xanaa daanub jële ngoog asahba rasulillahi inni xadimuhu asahba rasulillahi inni xadimuhu Sëriñ mi bindoon xasida daan dégg ñu koy tàgg mu mu jàgg mu dugg ci biir di jël bitéeli liki yi di leen xëpp di jël bitéeli miski yi di leen xëpp mujj muy ba tarti ko ci xeer yi ñu doon tabaxee jumaay njaareem ji naa ana wax ji wax ana wax ji wax Masamba ana wax ji wax ñu ne yaa ko wax di daaj xasida yi mun naa leen ana ko daaj ak fu ngeen yi daaj ñu ne ko dañoo ku baax ci kees yi bu xatul mubaarak mu di ko daaj ci mu ne leen moo ne ko daaj ci mi ngi ko dégg ci malaayika yi loolu mooy yëg-yëg la. barke